ahlan bikum ndaje mu mag la njiit réew mi Macky Sall xamal ak kàngamu APR ya lépp ngir waajal wote 2024 yi les se ko yéen a kaay ñu ko xamal 29 octobre bii ñu nekk ci la ñu investi Ba ay ca ndaje ma njiit réew Macky Sall waxul sax lu jëm ci ñi nga xam ne fa ñoo mer ñàkk ànd ak Amadou Ba génn bennoo ak APR maanaam ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak li ni mel coppite nag ya ñu andi ci wàllu parrainage bi bokk na ca Augustin Tine fa wuutu Tanor ca diiwaanu Thiès PS fañ leen leen ñu jiite benn parrainage ci Sénégal Ablaye Sow nag Kaffrine njiitëram Macky Sall fa wax député Benno Bokk Yaakaar yi na yéen ñëpp Amadou Ba ngeen di parrainé bu fi kenn dem di parrainé keneen nag source ay yéen a kaay na ko faa lañ ci yokkal njiitëram Macky Sall lu jëm ci directeur de campagne xawut yoonu ut ko de vox populi na ñañu mbuqi dëgg dëgg dëgg mooy PS AFP parti allié yi waa APR yi fañ leen ñàkkal fayda njiitëram Macky Sall poste yëpp ci ñi jiite parrainage bi ci Sénégal waa APR yi la ko fukk ak ñaar ci fukk ak daal lañ joxe parti allié yi muy Bambey Louga ak Ziguinchor ndawi APR yi tamit neexal ndax secrétaire général bu maire mooy coordinateur national parrainage bi beneen ndaw bu njiitëram Macky Sall neexal mooy Ousmane Noël Dieng njiitëram Macky Sall fa koo fal ambassadeur itinérant l'évidence yéen a moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy ne njiitëram Macky Sall ndaje moom doon xamal ak waa APR yi fa faa doxee fabriqué defar ndam li nga xam ne moom lañ nar a am ci wote yi di ñëw donte nag bennoo moom fi mu toll nii réeroo fa faa xam ndax PS ak AFP fa ñoo mer ba futtu ci liñ leen ñàkkal fayda joxuñu leen benn cër ci parrainage bi le quotidien yéen a kaay ne faa lañ yaakaar ñoom fa ñuy dem ci askan wi uti parrainage léegi lan moo tax comme am nañ ay député demuñ ci seen député yi rek yéen kaay bi na xée njiitëram Macky Sall ak ñi ma fa ñoo bëgg a bloqué andi gàllankoor ñoom Aly Ngouille Ndiaye njiitëram Macky Sall goroom Mansour Faye fa koo tuddee xàll wu rëy wa nekk ca diwaanu Ndar te ñu tuddee woon ko général de Gaulle fi mu toll ni njiitëram Macky Sall la ko goroom tuddee alerte yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom turbine yéen kaay mooy ne Amadou Ba ak gouvernement am bi fa ñoo seetaan askanu Sénégal si seen jafe-jafe yi du xaaj jeex wàllu mbënd mi dund gu cher gi ubbite école bi lépp métti ci askan wi lu leer ba yegg ca nañu ja mooy ne téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn candidat moo xamagum le soleil yéen a fa mel ni ku jàpp gémmiñ ga ne faa jaaxle waaru candidat yi bëri nañ de ku jóg rek na man candidat la lefay yéen a ne waaye xaar leen doublon yi ma leen di xaar ñu bëri si ñoom parrainage bi fa leen di bloqué duñ bokk ndax duñ mën a matal parrainage bi le soleil na daal yëf yi bëri na ba jéggi dayo ñeneen ñu seen candidat yi ñoo ku naan waaye ca geneen wàll ga fa mel ne waa Pastef yii seen candidat yu bëri li tax ñu def ko fa bañ gaa xam kan mooy dëgg-dëgg seen plan B su ko defee ñu baare ko mu bañ a jàll wal fajir yéen a kaay ne ah man daal faay bañ la daloon bennoo dal leen mooy candidat yu bëri fay néewal doole ab parti wala coalition le mandat yéen a kaay ne yeewi askan wi kay seen candidat yu bëri yii fa xàllal yoon Amadou Ba loolu fa baax ci moom parrainage loolu du dëgg du yoon Alioune Tine ki fi jiite woon rado na ko li nga waxee dëgg de Sonko fañ ko waroon a jox fichier DGE yi ko ko bañ a jox nag li ñu def du dëgg du yoon ndax ñoom seen liggéey nekkut wuutu fi conseil constitutionnel bi nga xam ne moo am cëru xool ki war a bokk ak ki war ta bokk ci ay wote ma ngi ko waxee ca Sud Quotidien a Bousso feelu ko ci Vox Populi na ko DGE li ñu def ak jaay doole waaye du dëgg yow fa ngay xool waaye nag loolu bu mu bett kenn ndax njiitëram Macky Sall moom fa jël justice ëtt attekaay ngir di topp galgal ay adversaire am jël gendarmerie ngir dal ci aw askanam rawatina ñuy ñaxtu léegi nag fi mu toll nii weesu nañ foofu DGE ñoom fa ñoo soppaliku léegi ay attekat te du seen cër ki fi nekkoon procureur Aliou Ndaw moom it yekk na lu mel ni xeme nguuru njiitëram Macky Sall ci doxalin bu jaarut yoon naka noona Fatou Blondin Diop moom it ñaawlu na li ñàkk a jox Ousmane Sonko fichiam yi ma ko waxee ci laas yéene kaay Abdou Sané njiital Pastef ca Ziguinchor ne faa di wax leen na adversaire bu kalang dëgër leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Youssou Ndour jëli na fiche am ngir uti parrainage naka noonu Moustapha Diop yor yor yéen a kaay ñu ko xamal l'évidence yéen a kaay ne Bougane Gueye Dany moom parrainage bi ñaareel ay jafe-jafe lay doon ci moom moo koy teree bokk ak yeneen mbir yoo xam ne yéen a kaay ba nga koy leeral ka leeral lan moo tax mu samp ndëndam laaj réew mi muy Serigne Mboup ma nga ca lii yéen kaay yaaw seetal fa wax ne li tax ma laaj réew mi mooy ne mën naa koo yor te jaar-jaar wane na ko point actu yéene kaay fa ñoo xamal ne diggante xalifa Sall ak Barthélemy Diaz fa mel ni fi mu toon neexootuñ de réeroo fa xam ca seen biir li ñuy wax nag conflit agenda moo ko waral ba tax yéene kaay bi ne fim mu toon ni taxaw Sénégal fa xam ñaari kuy muy Khalifa ak Barthélemy te ñaari kuy moom duñu bokk mbalka wala fa ñuy mbëkkante rek de ñi tàmbalee mbëkkante nag ngir uti parrainage mooy waa PDS yi indépendant yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom info yéene kaay mooy ne benn bokk yaakaar tey lañ gën am problème fa ngay xool cadre benn yu bëri fi mu toll nii fa ñoo noppi ne tekk kenn déggul leen bëri nañu bàyyi benn fi mu toll nii parti allié ya ñu bëri fa ñoo mer ndax fañ leen a cof ci parrainage bi yéene kaay bi ne man faa seetlu ne benn bokk yaakaar ñi leen di woteel fay gën di wàññeeku seen électorat bi 2012 ba léegi fay gën a wàññeeku rek donte njiitëram Macky Sall xam na bilan bu rafet te baax te moom moo gën a siiw moo gën a nekk politique kii di Amadou Ba léegi su fekkee njiitëram moo doon dem élection lim bi di gën a wàññeeku léegi Amadou Ba mi nga xam ne ñi ko xam bëriwul il n'est pas politique kon moom mbaa fa muy mujj dana neex fay laaj réew mi yor yor yéene kaay moom fa ñoo Madiambal Diagne tontu yu saf sàpp ginnaaw bu Madiambal Diagne génnee wax ci Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye fa koo rek la teg ko place am ko wax ay dëggam yu wax xatt mooy fa wax ne man faa réccu lan moo taxoon ma ànd ak waa APR yi ca diiwaanu Kaolack duñ na njiitu jëwriñ ni fa leen a dig yokk ba benn milliard le républicain yéen fa ñoo xamal ne Pape bi tey fa lajj daanu ba xalangu ci gàmmu gi ndax fañ cee nemmeeku courant yu bi yéen fa ñoo fàttali école di tijji ci jàngalekat yi le 5 octobre élèves yi ci la ñuy dem jàngi waaye fi mu toll nii waajur yi fa ñoo jaaxle jom mi ndax jumtuwaay yi élèves yi jàngee fa cher ba jéggi dayo te xaalis amut li am ba antenne yi ne kaay wax ñu ko mooy lu ëpp juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ne fañ leen ne teg loxo fa ñoo duggoon ci gaal gi ngir dem Barça mbaa Barsàq bokk na ca ñoom ñeen fukki soxna ak ñaar ak ñaar fukki mineur ay xale l'observateur moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme yaaw fa ngay xool fa xam benn siwo bu ñu fekk ca ab terrain ca Joal Fadiouth bañ tijjee siwo ba faa fekk weenu xale bu jigéen boo xam ne fañ koo xuppati dagg dugal ko ci siwo ba ba pare bàyyi ko fa dem ay <laughs> waa ma ne Sénégal lu nekk dana fi xam wàllu xarga fuufa la ak lu mu ci di doon yëf moom fa raglu te fa yéeme ndax man fay laajte xana borom ween wa leen ci suñu chaîne youtube ngir jot ay xibaar yu wér te wóor aju réew mi ak ci bitim réew